fàttali léegi ne Abdou Latif Gueye yal na yàlla jéggal ko bi mu fi nekkee gis ni drogue bi mooy yàq xale yi dofloo xale yi mu ni ñi indi drogue bi fii ñooñu ñooy ay criminel biñ ci xalaatee ñun ak ay yeneen député ba def projet de loi bi mais nekk ñu fi di wax ni euh, yamba astuce marijuana héroïne cocaïne mënuñu tudd yëpp dañoo jël benn baat rek ni drogue dañ koy criminaliser ba léegi ku ñu jàpp ngay jaay drogue li gën a tuuti lu ngay tëj mooy fukki at jëm ñaar fukki at la nga yore woon muy la valeur marchande dañ koy ful ñetti yoon nga fay ko par force kër yi ci tabaxoon ak oto yi ñu nangu ko jox ko jox ko état bi. loolu tax na tey jii loolu ñu ngi ciy liggéey lu bëri bëri ci wàllu drogue gis nañ nag léegi ni wàllu borom ñaari tur dem na ba sunu sëriñ si sax ñu ngi leen di tuumaal xoolal ku mel ni maam Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu anhu liggéeyal yàlla. liggéey Seydina Mohamed soo jàng ay xase xas xasida yi dafay tagg Seydina Mohamed tudde boppam Xaadimu Rasul mooy man man maam Cheikh Ahmadou Bamba maay mbindaanu Seydina Mohamed je suis le serviteur de Seydina Mohamed bëgg Seydina Mohamed ñu dem di ko caricaturer di wax lu ñaaw ci moom mais ma ni euh, defoon nañ ko Seydina Mohamed wax nañ yàlla lu metti ndax yàlla fu ñaari góor sëyee yonente bi nee na asamaan dafay yëngatu bay waaj a daanu ci kaw suuf kon ñun yëg nañ ni le ministre maa ngi koy défier moom damaa wax ni ministre bi bés bu ma génnee lee ni ñaari góor yu sëy bokkul ci union contre nature bu boobaa maa ànd ak moom te loi bi dafa leer article 319 yéen xam ngeen li may wax nee na union contre dañ ko tere fii ci Sénégal te man kenn mënu ko fi génne mënuñu nag nekk di lim union contre yëpp naan homosexuel homosexualité lesbianisme zoophilie ñi sëy bàyyi may ñi sëy ci morgue yi mooy la nécrophilie ak sax yoo xamante ni xamaguñ ko mënuñu ko lim yëpp loolu moo tax rek dañ naan ne union contre nature ku ko defee di Sénégal dinañ la tëj gën caa tuuti fukki at jëm ñaar fukki at loolu nag ma wax ni Amadou Mbéri Sylla honorable député Amadou Mbéri Sylla sa tur lii boo ko jàllalee sa tur dina kenn dootu ko fàtte ci Sénégal te kilifa diine yi ñëpp dana jàppale te yàlla ci boppam dina kontaan ci yow te ku nekkal yàlla incha allah yàlla nekkal la gëmal li nga gëm ndax yaa ma jox kàddu ni naa ko wax di nga ko def di nga ko déposé sant nañ la ñun waa Jamra Sénégal sant na la kilifa diina yëpp sant nañ la yow Amadou Mbéri Sylla dinañu defar projet de loi bi jox la ko nga dem déposé ko. ah am naa yaakaar bu baax a baax a baax ni dinañ la jàppale ci projet de loi boobu ba Sénégal lu bon la lu jóge fi ñu yóbbu ko feneen ndax nag Sénégal du France.